sëriñ bi nag laq na ay jagle ci buur làq na ay kéemaan yitam yu wóor wóor bokk na ci jagle wax ak bur yàlla bokk na ci jagle du may bur yàlla bokk na ci jagle wax ak bur yàlla bokk na ci du may bur yàlla bokk na ci jagle mbiram lenn du neen waxam jëfam yéeneem yitam day tega yoon bokk na ci jagle dëkkaaleeg sun borom bokk na ci jagle itam amul moroom bokk na ci jagle dëkkaaleeg sun borom bokk na ci jagle itam amul moroom dëkkaaleeg sun borom bokk na ci jagle itam amul morom bokk na ci jagle du faatu mel ni nun bokk na ci jagle du gis waaju ko man bokk na ci jagle liggéey loo ku ñu xam koo xam ni faatu na borom bee ma tëgam bokk na ci jagle xamam nga xam gu wér la jëkk bindeef yi tayit dee su ko lor bokk na ci jagle xamam nga lay ñëwaat ba bis bu mujj ba ak lu fiy xewaat bokk na ci jagle du wopp bay tawat day wér di sant yàlla buur bi dul tawat bokk na ci jagle du sonn benn bis ngir kattanuk yàlla borom bii gën a fes man zannani fi leyli wa nahaari zaataabin fal jahlu fil jihaari bokk na ci jagle du xiif ci benn bis ngir yàlla buur moo koy teral muy gën a mos bokk na ci jagle du mar du ti itam du jàq mbaa muy jaaxle it fu mu mën a jëm bokk na ci jagle lu muy xalaat mu am ci kattanuk yàlla borom bii gën a xam alama nii manin bari yata fatar wali yaquudu ma bi baali ya xatar bokk na ci jagle itam jinne yi gëm yëpp ci moom lañ aju ngir yàlla itam bokk na ci jagle itam jinne yi gëm yépp ci moom lan aju ngir yàlla itam duuna man lam yuslimu bi yata'allaqal ladina aslamu dindi asri duna man lam yuslimu bokk na ci jàkle te xel na képp koo xam ni daa aju ci moom ay sopp bokk na ci jagle ku koy sopp itam texe ne ëllëg fa borom bii gën a xam bokk na ci jagle texe dik ku ko bañ fa yàlla buur sunu borom bii gën a sañ bokk na ci jagle amuk kuy sopp ko boolem da muy mébét ci wute sakku ko bokk na ci jagle amuk sopp ko mboolem la muy mbébét ci yiw te sakku ko bokk na ci jagle salam ga alquran ak nit ñetti fan ci weeru ci jagle bindam yi mu ñu wan ñoo gën fa yàlla wépp yiw ñoo gën a man bokk na ci jagle bindam yi mu ñu wan ñoo gën fa yàlla wépp yiw ñoo a man dañuy setal ayib yi ak bakkar yi dañuy seral nax nax yi ak gargar yi tey yëgalee ci yàlla tey boo leen di bind ngir borom bi di ko gis tey yëgalee ci yàlla tey yëgal boo leen di bind ngir borom bi di ko gis ñoo kawe it sëriñ yëpp yi yare ak yi yéege ñepp ñepp yàlla mahfuuz itam la ay bindam di bàyyi ko te nuy soral gépp lëndëm yeneen ti yëpp ay bindam façon borom da leen di jeqi ngir matuk yàlla borom bindam itam ci mucjizay ab xaritam lañ bokk duñ karaama kon cib xaritam waaye ci moom doy nañ karaama moo ko yal na nu sàmm nuy matal tey wari wax daaneel na kéefër ci mbindam moo taxawal lislaam ci ay bindam bu wér moo rafetal bindi ji hëdam day fanal yéefar yi saa su ween ci ñoom matal yéefar yi ba ñëpp faatu ngir borom bi may koleer waaye mu jéggal na bu wér ngir benn buur bokk na ci keeman ci moom wéral tawat jum mën a doon ak di amal mbir mum amatu bokk na ci keeman tawal fi asamaan ngir jëmmi yàlla mi amal ci asamaan ci keemaan di gis tàng bagga yitte foofee mu toog ak wan ko na ci keemaan di gis tàng bagga yitte foofee mu ak wan ko yitte ay yenn nit bokk na ci keemaan tofal mbooloo kaneen ñuy topp ay waxam di sopp déglu leen bokk na ci keemaan lu muy wax lu mu doon kamu ko sant bu jógee man ko nosiin jigéen man defar nit ku mu doon ba mu jub ragal yàlla bu wér tey sori neen bokk na ci keemaan itam lum ñaan mu am yal nañu may ñuy gën a sant tey gën a xam bokk na ci keemaan du fàtte lum xamoon te mooy fa yàlla buur bi bind leen bokk na ci keemaan itam ñàkk nelaw lu dul tuuti lool te daawul selaw bur yàlla may ko li nga am ci xeeti may ak yi ngërëm ak yi mbégam muy sori may may gu mayat Cheikh Moustapha luy gën a rëy ci xeeti may ak yi ngërëm muy sori ay bur yàlla may ko li nga am ci xeeti may ak yi ngërëm ak yi mbégam muy sori nay may gu teral faadilu lool may ko ba tey li yàlla xam ci ay ngërëm ak xeeti may buur yàlla may ko li nga xam ci xeeti may ak i ngërëm ak i mbégam muy sori nay may gu mayat Abdul Ahad ci bit bu set di yàlla xam ci ay ngërëm ak may yu mat buur yàlla may ko li nga xam ci xeeti may ak i ngërëm ak i mbégam muy sori nay may gu mayaat seex Abdou Khadir may yooyu te koy teral te koy musal muy gën a wéy pour yàlla may ko li nga xam ci xeeti may ak i ngërëm ak i mbégam muy sori nay may gu mayaat saalixu leer teral ko lool muy gën a sant bés bu set tey gën a bél bur yàlla may ko li nga xam ci xeeti may ak i ngërëm ak i mbégam muy sori nay may gu mayaat doomi sëriñ bi yëpp li yàlla xam ci ay ngërëm ñoom ñëpp buur yàlla may ko li nga xam ci xeeti may ak i ngërëm ak i mbégam muy sori may gu mayaat murit yi yëpp ay mbégam di leen deral di leen xamal di xam-xam may gu mayaat murit yi yëpp ay mbégam di leen deral di leen xamal ci xam-xam di leen musal di leen soril luy nuru ay ñuy gën a sant bis bu set borom tey di leen musal di leen soril luy nuru ay ñuy gën a sant seen borom tey sori mooy di leen musal di leen soril luy nuru ay ñuy gën a sant seen borom tey sori mooy